jeex. d' accord alors ci usman sonk boobu ñu taxaw foofee la ñuy desandi xam nga ni nag. ñoom fan yëpp ñi ngi doon amal li nga xamante ni moo di levée de fonds mhm. ngir mun a waajal li nga xamante ni moom moo di campagne bi ndax mhm. ñoom seen gis-gis jàpp nañu quel soit la campagne googee dañ ca war a bokk te it mhm. euh, dinañ ca bokk te lu ni mel nag dafa jar waajal tax ba ñu collecté l'autour ci quatre cent soixante-dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille francs maa ngi lire démb ci page yu maître Ngagne Demba mu koy énuméré nee na vingt millions la ñu am foofee ca Belgique vingt-deux millions Suisse quatre-vingt mille millions Italie 125 millions France euh, lu ni mel tamit ñu war ko woyal ca Espagne ca Royaume-Uni ak yu ni mel mu mel ni kon yëf yi ba tey projet bi ñoom tey lañ ko gën a gëm malgré seen leader jafe-jafe yi mu nekkee ba ñu yóbbu ko foofee ca Cap xam nga li ci gën a neex mooy. oui 1960 laay wax ba léegi wax ma ban leader mooy ñëw sénégalais yi yëkkati ne ko am liggéeyal ñu au lieu moom mu yëkkati ne am leen kaay leen fal ban ban ban ban leader nga ko fi gis de Senghor ba fii ñu toll. ba fii ñu toll amul benn leader buy jóg ngay def meeting ngay def daje boo xamante ni rek waxtaan ak say say say say say nu ñu koy tuddee ci militant la. lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt million wala cinq cent mille dana fa def cent cinquante mille sandwich trois cent mille t-shirt cinq cent mille nga dem jëli ay nu koy tuddee ci dugg biir marché HLM wala nga commandé say tissus yu. couleur parti ba nga yore ñu ñëw nag jémbekat yi ñëw tëggkatu sabar yi ñëw rajax-rajax gumbe yi nga xamante ni suñu mbokki lépp yi dañ koy def ñëw ñoo ñooñu ñëpp nag bu ñu paree wala avant ñuy dem ñu këpp sa kaw nag ngay baatare di génn di joxe ala jooju fan la jógee loolu du développer le réew loolu la président Ousmane Sonko ko xam ñëw wone wone ni réew bu développé ña nekk ci réew ma ñooy njëkk a wone développement ci seen bopp réew mi soog a dox moo tax doo dégg benn opposant benn opposant di critiquer lii waa Pastef di def au contraire dañuy toog di julli na yàlla ak a neexoon tey nga may ma ñu am pas-pas nii nga xamante ne waa Sonko waa waa waa Pastef noonu la ñu amee pas-pas ci procès bi nga xamante ne don de soi pour la pour pour la patrie loola nag moo amul woon jamonoy Senghor amul jamonoy Abdou Diouf amul jamonoy Ablaye Wade Abdoulaye Wade bi muy def campagne pour jël réew mi pend gis nañ fi pi eh, Idrissa Seck caravane de Chamoun moom moo ko créé ñu yor benn oto ñu génne seen i xaalisu bopp ñoom ci seen bopp ñoom leader yi def ko ci mais tey sénégalais yi ñoo taxaw ne Ousmane Sonko kaay ñoo la tànn gannaaw ba nga waxee ñu xam sa jikko nga doy ñu kaay nga jiite ñu li nga ñuy jiite nag ñun ñoo la koy defaral ñun ñoo lay xàllal yoon wi moo tax nga gis diaspora bi te incha allah bu ñu jógee ci diaspora bi xam nga xam nga ci fii Sénégal Sénégal moo waroon a njëkkee mais Sénégal dafa nekk cas boo xamante ni c'est c'est c'est compliqué parce que tey bu ñu yëgoon tey nii sax man génne naa cinq cent mille wala un million jox ko parti Pastef mm-hmm. danañ la topp wala ñu jël la tëj la kaso mais il faut ñu xool na nañuy tërale commencé ko nag ci diaspora bi. ñoom nag ñu ubbil baal bi comme ni ñu koy waxee wala ubbi làmb ji. wala ubbi jàng yi. def ca lu am solo presque genn wàllu milliard ci benn bëccëg ak dajale milliard ni mu méttee. ni mu mettee ci ñun ñu ne Belgique France Italie euh, nu ñu koy tuddee ci euh, Bordeaux wala feneen ak fu mu mënti doon mais penn jàngat bi ma ci am man dama yéemu te. di delloo si xelu ñi nga xamante ni ñoo taxaw te mu ci bëgg a xañ Pastef fi mu bëgg a egg xam nga ban jàngat laa ci jële ban jàngat jàngoro yi euh, Covid bi. ñaata la ñu dajale waaw ci Covid bi sax nee sax Covid ba tey mu ngi fi de. ma ñaata la ñu dajale. bëri na de. un milliard. wala mille milliards pardon. ku ne joxe ci sa koppar. mille milliards. wër wër fa nekk. Mhm. lu état bi am ñu yulli ko. Mhm. tey 1000 milliards yooyu. ñu naan fii la dugg ak fee la dugg tey pour ñu dajale ñun 1 milliard pour ñu am 500 millions. mais xëy nañ toute une journée. loolu day wone ni. kii nga xamante ni moo ñu initié ci lii kii ñu xamante ni moo mooy moo comporté au comportement bu tax ñuy dajale lii. kooku bu ñëwee réew mi dana nekk lu neex. parce que nit ñi danañ wàcc ci terrain bi dem liggéey. te lay tax ñuy wàcc ci terrain bi di dem liggéey da koy ubbi bu ko ubbee ñu topp ko lii nag ndam la. ndam la ci Pastef ndam la ci président Ousmane Sonko. mi nga xamante ni moo euh, jiite mbir mi ba mu egg si fii nga xamante ni fi la egsi. dañ koy dañ koy ñaanal yàlla. yàlla na ko yàlla mottalil yoonam nga xamante ni tey ëllëg Sénégal euh, kenn ku nekk nekk ci sa mbiru bopp. kenn ku nekk nekk ci sa faj sa soxla bopp important mais mais mais mais problème bi mooy ñu bëri jàpp nañu ni collecte de fonds yi ndax am war nañ ko def bu fekkee ni euh, tey jii ab parti la bi nga xamante ni dañ ko dissoudre et que a ñu mën a benn activité d'autant mhm. plus que ne xamu ko ñu seen ëllëg fu mujjee euh, candidature Diomaye Faye dossier de candidature Diomaye Faye même su fekkee ni pour l'instant parrainage yi validé na ko mhm. quand même yëf mu ngi continuer di wéy kenn xamagul Ousmane Sonko mi nga xamante ni ñoom ba tey jàpp nañu mu fan la yëfi di mujj ci moom kon ndax fu mu nekk ni collecté ay fonds euh, teeluñu ko def tout en sachant que ni xamuñu fu ñuy mujjee. waaw léegi man mën naa poser question ñiy wax loolu xamuñu fu ñuy mujjee ji ñoom dañu bëgg mu mujjee foo xamante ni moo leen gënal wala dañuy topp yoon loolu rek laay poser question ñu jàkkaarloo man ñi bëgg ñiy taxaw naan Ousmane Sonko xamagul fu muy mujj ndax ñoom dañoo bëgg mu mujj ci musiba wala boog dañu respecté yoonu Sénégal. te bu ñu toppee yoonu Sénégal bu fekkee ni yoon rek la ñu wax yoon wàccuñu yoon Ousmane Sonko dootuñu taxaw fenn naan ndax dana bokk wala du bokk te ba léegi yoon boobu Ousmane Sonko wàcc ko benn Ousmane Sonko tooñul Ousmane Sonko benn groupe moo jóg ne jëmmi Ousmane Sonko neexuma comportement Ousmane Sonko neexuma danaa ko xañ Sénégal yi taxaw ne leen nag du ngeen ko xañ ñu ne léegi comme que deme na noonu te ñoom yàlla dogal na ni ñoom ñoo yore li ñuy xàññee li ñu dul xàññee fàtte nañ cëru yàlla mais ñu dem ceeg ñoom ci yoon ba ñu demee ñoom ci yoon ba léegi mais gis nañ ni fu ñu dem ci yoon bu ñu waxee yoon soo ko jàll na bu ñuy wax yoon Ousmane fu ñu njëkkee ci yu ñàkk fayda affaire yu jigéen anamu teg na do tegu na de côté bërki dem rek conseil constitutionnel ñu ngi taxaw di wane ni contiment euh, contumace leneen lu mu mënti doon teg nañ ko de côté. waaw mais benn léegi lu des. ndax danañ bàyyi Sénégal benn jëm wala benn groupe boo xamante ni group bu quinze personne lañ groupe bu vingt personnes lañ ngir seen besoin personnel ne pend du bokk. mais blocage bu mu am dans l'affaire Mame Mbaye Niang nag. blocage bu Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang mënu ko tere bokk. condamnation boobu condamnation bi parce que def nañ kii. nu koy tuddee man dégg naa ay juristes yu wax ni. non xam nga juriste ak avocat leneen lu mu mënti doon man li ma jàpp mooy. atte nañ ko atte boo xamante ni parax parax la ñoom dem nañ dugal nañ lan. dugal nañ seen recours waaw léegi nañu xaar loola àtte guñ ko bu dee affaire Mame Mbaye Niang fay mu tegu ma fa tegu te ñoom xam nañ luy yoon. mandataire am tamit di maître Ciré Clédor dugg na recours foofu ca conseil constitutionnel. non boobu moom dama ci moom laa doon bëgg a ñëw. Euh, bu euh, que lu nekk ak euh, question am ak réponse am mais dama la bëgg a xam ne affaire Mame Mbaye Niang moom nañ ko teg de côté. parce que fii ba élection yi di passé affaire Mame Mbaye Niang mënuñu cee tëral luy xañ Ousmane Sonko pour mu nekk candidat. kon jeex na. recours bi rabat d'arrêt bi. oui bloqué na lépp. mais recours bi ay euh, maître Ciré doon dugal tout récemment conseil constitutionnel. loola nag dafa am lu mu wane loo xamante ni jotagoo ci yow fruit recours boobu. Mm-hmm. résultat recours boobu xam nga tey.